بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبي تولو دي عندح نون سي FM 98.2 في تسكاتر بام نون لين نيو نون لين نيو الجمو بني دي لين زيار دي لين جوسين واتشواي di leen ñaanal yàlla tawfiixul ilaahi sutura su sax di ko ñaanal fadilatu cheikh Thierno Hamidou di ko ñaanal yàlla yàggal ko ci taxawaayam ci kanamu njaboot gi yàlla dolli ko sutura yàlla defal ko tawfiix bu baax a baax ma sixa wal aafiya yàlla mi nga xamante ne mooy sàmm jaam yàlla na ko yàlla sàmm eh, naal yi nga xamante ne yëpp su mën ko incha allah ak yii ñëw yal ci yàlla def tawfiix noonu la ñuy nuyoo ak ñaanal waa Safina Saadaati zukuran wa inasa ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla tawfiixul ilahi yàlla defal leen sutura bu baax Serif Diallo sahibul ibriq mu jotal ñu nuyoo ziyaar mbokk yëpp noonu la ñuy nuyoo ak Sayda Ñuma di ko ñaanal moom it personnel bi yëpp ñu ne ci wàllu xabaar yi ñu ne ci wàllu technique bi ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen tawfiix yàlla dolli seen sutura daa'iman ñu yàgg di ko taxawee ba yàlla defal leen ay promotion yu kawe lool seen njort te lépp am ndax barke ak sutura incha allahu rabbi di ñaanal ñi nga xamante ne jamono bu ne ñu ngi ànd ak ñun suñu wayjur Adja Coumba Ndiané Sarr ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiixal ilaahi yàlla dolli ko sutura bu baax yàggal ko si kanam kanamu njaboot gi suñu papa El Hadj Abdoulaye Diop fi ci Scat Urbam ñu ngi koy nuyu bu baax moom it di ko ñaanal yàlla tawfiix sutura moo commandant Mansour Nia ñu ngi lay nuyu bu baax. Badiane Ndeye ñu ngi koy ziar mbokk yëpp ñu ngi leen di suñu yaay yi ne ci gox bi may Adja Maymuna Diouf Adja Nogay ñu ngi leen di nuyu maire Maguette Diop jël nuyoo di ko jox maire Ndioufa mu jotal ñu ko nuyoo yëpp tey yaay jàmbur seen nuyu ko waaye xam naa ne mu ngi si jàmm rek ñu ngi koy nuyu macha allah di ko ziyaar euh, di ko ñaanal yàlla tawfiix sutura fu mu mën a nekk rek yàlla na yàlla defal jàmm ñu ngi yëg ñaan yi ñu ngi yëg ziyaar yi yëpp incha allah te loolu lañ lay ñaanal. ndax ku jaboote nga yan yàlla doole sa sutura bu baax di nuyu waa Scat Urbam yëpp waa Amo Shelter waa Konachap ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu dëkkandoo yi eh, Adja Raki di ko jox nuyoo mu nuyul ñu mbokk yëpp macha allah mu wax Adja Marie Diallo Fatou yi ñoom ñëpp macha allah dëkkandoo yi ñu ngi leen di ziar góor ak jigéen mag ak ndaw. di nuyu mag ñi nga xamante ne jamono bu ne rek ñu ngi ànd ax ñun Pape Amadou Sow ci comme ni ñu koy waxee rek di doyen ñoom ñëpp ci soppe safina yi Pa Wargo Won El Hadji Baye Ngala Dia El Hadji Doudou Seck fële ci Liberté El Hadji Yoro Ndiaye fii ci Scat Urbam délégué du Ciss ah ñu ni mel ñoom ñëpp góor gaa ngi leen di nuyu bu baax muy yóbbaale Pa Wargo Won macha allah moom it eh, ci kàddu yi rafet yi ci sopp gi mu sopp Thierno sopp ko kër gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq Euh, kon góor gaa ngi nuyu ñëpp macha allah di ñaan yàlla rek daa iman nu mu koy waxee di feddali kóllëre nu mu koy waxee di ñaan yàlla mii borom sutura mu defal leen sutura di ñaan yàlla mii guddal fan yi mu ñoddi seen fan lool te mu àndax barke di ñaan yàlla mi nga xamante ne ku mu dimbali rek nga am ndimbal yàlla na leen yàlla taxaw bu baax mu ngi am mbégte lool saa yu dégloo safina rek gis boppam ci biir te loolu moo dal mag ñooñu ñëpp kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal fu ngeen mën a nekk rek dee leen wax amiin xam ne góor yooyu ñu ngi ñaan kon mag ñooñu it ñu ngi leen di delloo ñaan macha allah yan na leen fi yàlla yàggal euh, kenn ku ci àddu rek dangay gis ne ñoom ñëpp àddu nañu ay kàddu yu yiw kàddu yu teel euh, mag yu yaru macha allah te di loolu la ñuy jàngal ndaw ñu ñoom euh, discipliné ci wax ci teggin kon nag mag ñooñu vraiment yan na leen fi yàlla yàggal. El du Doudou Seck nga nuyu ñu waa Liberté yi ñoom ñëpp ngi leen di ziar ay soppee nga fa euh, donc boo waxee rek ñu ne ah bàyyil noonu dañuy lépp tur rek waaye El du Doudou Seck moo ñuy yóbbuwaale ko nag ñu nangul leen ko euh, yal na yàlla yàlla defal tawfiix bu baax a baax a baax a baax yàlla dolli seen sutura bu baax. njabootu El Hadj Baye la ñu ngi leen di ziar jël nuyoo di ko jox kolle mu ziaral ñu njaboot gi ñëpp suñu papa El Hadj Alioune ñu ngi koy ziar moom di ko ñaanal tawfiixul ilaahi sutura su sax daa iman Euh, ñëpp rek euh, maman saxaaba Diop ñu ngi koy nuyu naaji bi waa hôpital Abbas ndaw ñu ngi leen di nuyu waa Philippe Maguilène Senghor ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu Babaye moom it di ko ñaanal ci xew-xew bi mu dëkk mel suba yal ci yàlla def tawféex yàlla defal ko sutura bu baax Abdoulaye Sarr Ginte Libas Pape Mor ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu fële ci yoof soppe ya fa ne ñu ngi leen di nuyu bu baax soppe it ay del euh, nuyoo di ko jox El Hadji Malick moom ci ñaan du tàyyi benn yoon wax dëgg yàlla mu ngi nuyu ñëpp ne léegi atelier bi moo xaw a dandu tuuti rek waaye eh, du jóg di oote di di nuyu ñëpp te jamono bu ne yéen a ngi koy dégg waaye jàmbaar la yal na ko yàlla defal tawféex moo nga liggéey ak soppe yëpp Malick Bane ñoom ñëpp waa caserne Malick si ñu ngi leen di nuyu Alioune Mbengue fële ci Yoff Ndenaat ak ña muy nekkal moom it ñu ngi koy ziar bu baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla tawfiix yàlla defal leen sutura bu baax si liggéey bi yàlla barkeel liggéey ci géej gi yàlla defal leen sutura bu baax a baax a baax yàlla sàmm leen naar Seck di nuyu taximaan yi fépp fu chauffeur na rek ñu ngi lay ñaanal ci nawet bi ñu ne it yàlla dolli jàmm Ibrahima Silla Diaz yof nga par ñu ngi koy nuyu bu baax Pape Assane Gueye moom it di ko ñaanal tawfiix jàmm di nuyu imaam eh, Ousmane fay mu jotal ñu noo al aima wala ulama moom ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax sutura su sax daa iman Abdou Sarr lii di soxna Binta mbay Liberté 5 ñu ngi koy nuyu moom it si ñaan yeex ci yëpp macha allah di ñaanal wey juram yi jiitu barsax yan yàlla yërëm leen te jéggal leen mareem li astu ngoom Muntaga Gay soppe yi fu ngeen mën a nekk nday Binta Konte daam Touré yaa Aïcha Diallo soxna a Jaw fële ci HLM ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ñaam ngoom ci maris maire Khoudia Mboup ñu ngi koy ziar moom it di ko ñaanal fu mu toll rek ci liggéey bi yàlla na ko yàlla jàppale bu baax soxna Adja Kër Massar Saaz Moussa Balde ak soppe yi mu nekkal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Mbéri Guèye Abdoul Aziz Diop Ouest Foire yal na yàlla sàmmal ñu leen. kon nag yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 88 628 10 95 incha allah bu ñu demee ba toll fa danañ ubbi ligne bi comme al aada. waaye tamit di jaajëfal ki nga xamante ne moom la ñu fi wutu léegi al oustaz al alim al allama El Hadj Omar di ko ñaanal tawfiix soj mee xaw jàpp waaye moom macha allah ñu ngi koy ñaanal sutura su sax daa yàlla dolli ko xam-xam mooy rek mu àndax sago àndax wér waaw yal na ko yàlla defal loolu incha allah ñi fi def waxtaan yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla tawfiixul ilahi yàlla dolli seen sutura xam-xam bi yàlla gën ko dëgëral barkeelal leen ko incha allah kon nag su ko defee ñu ngi ñëw ci laaj yi nga xamante ne mbokk yi toujours ñu ngi koy laaj ci seen émission xam sa diini tey ñu am ay laaj yu ñu bëgg tënk ci benn waxtaan muy lan mooy tawxiid lan mooy lislaam tawxiid lislaam boole gëm yàlla maanaam lu ci ne lan la laaj nan lañ koy mën a faram fàccee jërëjeen jëf parce que jullit bi moom lépp lu muy def rekk war na ko xam rawatina wàllu diine war nga xam sa diine bu baax loolu moo tax macha allah émission bi it bi xiyaadati Thierno Hamidou ñu tuddee ko xam sa diine yal na ko yàlla fayal moom Thierno kon jullit bi war na xam bu baax ne martaba diine lislaam ci ñett la aju muy maratibu diinil islaam yi ñett yooyu jullit bu ne war na ko xam xam ne martaba bu ne am na lu ci yàlla teg ci martaba yooyu lay mooy lislaam mooy imaan mooy ixsaan yooyu boo ko xamee moo lay dimbali nga man jaamu sa boroom ni mu jaadoo ndax loolu mooy cosaan li mooy cëslaay yi doomu aadama bi war na xam ne lislaam mooy martaba bu jëkk moom lislaam dafa ame ay ponk te tong buñ la doon wax l'islam nga ne mooy ommatu ci borom bi subhanahu wa taala l'islam mooy wéetal borom bi subhanahu wa taala l'islam mooy jaamu gi ngoy def nga def ko ngir yàlla subhanahu wa taala l'islam mooy nga sori deñ ci lépp loo xamante ne bokkaale la ax ni mel loolu boo ko xamee mooy al istislaamu ci wéetal boroom bi subhaanahu wa taala ne ko bokkaale kon yooyu doomu aadama bi daf ko war a xam bu jëkk bi nag di al islaamu di o islaam muy martaba bu jëkk bi moom dafa ame juróomi ponk kon buñ la laajee wala ngay laaj sa bopp waaw lislaam ji ma nekk ñaati ponk la juróom la bu jëkk bi mooy li ñuy tudde ñaari baatu seede yi mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bi ci topp di wa iqaamu solaa ba ca topp di itaau zakati ba ca tegade bu ñeenteel bi di sawmu ramadaan bi leen juróomeel di xajju baytillahi alxaram kon lislaam boo xamee li mu doon mooy ommatu ci yàlla di ko jaamu di ko ko defal moom rekk sori bépp bokkaale ax lu ñu mel moom moomu nag ci juróomi ponk la tegu mooy juróom yi ma la limal léegi ñaari baatu seede yi mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yooyu yëpp bu ci nekk am na tegtal am na delluwaay ci alxuraan am ko ci sunn motax suñu borom bi di wax ne baada auzu billahi min alcheytaan rajim shahida allahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالحسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كن لولو موي تكتل yàlla rek moo fi ne moom la ñu war a wéetal moo tax nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mooy lan mooy amul kenn ku ñu war a jaamu laa maabuuda bi xaqin illa allahu waxdahu laa ilaha illa allah mooy amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla moom rek moom moo fi ne lan la ci jublu mooy dàq lépp loo xamante ne dañu koy jaamu walis yàlla moo tax nga ne laa ilaha waaye boona na doone ashhadu an laa ilaha yam fa masalan nga doon nodd ashhadu an laa ilaha déedéet ashhadu kon dangay ngay saxal waaye doo dàq rek taxaw fa déedéet kon yàlla rek moom moo fi ne waaw bari na ay adilla ay tektal ci alquran waxtu yu moo ko dul maye waaye wan la ci benn tegtal boobu ne la loolu moom ñëw na ci alquranul karim buñ ne wa anna muhammadan rasulullah maa ngi seede ne yonente bi yàlla moo ko yónni loolu mooy lan لول ميتا عتوه فيما أمر مم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أقبر واجتناب ما نهى عنه وجزر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع لول معنى شهادة أن محمدا رسول الله kon top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci limu ñu digal top ko ci limu ñu digal motax suñu borom di wax ne wa ma ataakum rasulu fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu kon mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu andil na ngeen ko jëfe waye nak limu len tere na ngeen ko bàyyi niki nonu nga dëggal ko ci limu mu andi limu andi te mu wér na yonente bi moo ko andi nga dëggal ko ci loolu tasdiquhu fi ma akhbar waaye tamit wajtinaabu ma naha anhu wa zajar góorgóorlu ba moytandaku lépp lu mu tere lu mu xuppe nga tere moytandaku loolu wane tamit ne doo jaamu kaneen kudul saydu kudul yàlla subhanahu wa taala ci li seydina muhammad andi muy alshariatu alislamiya سني برام دي وحنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلسين له الدين قنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لولوشي دليل جلي الزكاة دينا خم توحيد مويلان كور كذلك نيونا سني برام دي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أجي نيونا suñu borom di wax ne walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila juróom yooyu mooy ponki lislaam shahada an la ilaha illallah julli nga xamante ne mooy ponk bi ci gën a màgg mooy ponk bi nga xamante ne ëllëg moom la ñuy njëkk seet mooy ponk bi nga xamante ne su baaxee lépp baax kon boo ne jullit la juróomi ponk yooyu da leen di xam bu si ne waaye bu si nekk it nga taxawee ko ni ko lislaam andi boo ne jullit la waaye man duma julli jullit la waaye man duma julli kon sa njullite wérul jullit la waaye man duma dem aji màkk te man ko sën njulit wérul bu fekkee rek ponk yooyu da nga leen weddi ne amuñu kon yow bokkoo ci lislaam bokkuloo ci lislaam kon ku leen weddi ne amuñu bokkuloo ci lislaam waaye nag boo nangoo ne am nañu ci diine lañ waaye duma ko def boobaa nag mooy nga yàlla li la war mooy nga tuub dellu ginnaaw ci loolu le kon boobu mooy ponk bu jëkk bi mooy martaba bu jëkk bi ci diine mooy al islaamu ak juróomi ponkam bu ñaareel bi ci ponki diine mooy al imaan gis nga dafa mel ni yéegukaay la muy escalier dangay teg tànk bu jëkk sëxiwaat jéego jëm kaw bëgg a bu ñetteel loolu mooy coslaay mooy martabay diine lislaam martabay diine lislaam ñetti jéego la jée teg tànk yaa ngi ko teg ci lislaam nga séqi jéego teg ko ci imaan muy gëm yàlla séqiwaat jéego bu ñetteel teg ko ci ixsaan yooyu mooy martabay diine lislaam bu jëkk bi lislaam fàttali naa la juróomi ponk yi mu am gëm yàlla nag bari na ay càllale xattaa sax yonent bi dafay wax ne mat na bidon wa sabuna shu'ba bidon bu ko arab waxee rek mooy diggante ñett ba juróom-ñeent entre trois ba neuf ñeen nañu ne entre trois ba dix loolu mooy bidon waaw ci li gën a wér wala li gën a siw bokk أعلاها قول لا إله إلا الله ngëm yàlla ngëm yàlla pàcce yi mu pàccoo ba mat mat juróom-ñaar fukk ax lu teg ba sa gën a kawe mooy laa ilaha illa allah ba ca gën a kawe kon moom ngëm yàlla ay daraja di dem ba juróom-ñaar fukk ax lu teg bi ci gën a kawe nekk ca sa ca mbaxtal la mooy laa ilaha illa allah moo taxoon yonente bi naan qulu laa ilaha illa allah tuflixu wax leen laa ilaha illa allah ngeen texe kon wax laa ilaha illa allah mooy niñ la waxe sànxana la lii mooy maanaa bi maanaam loolu mooy jubluwaay bi du mujarrada tekkiwul wax ko rek waaye xam lan lay tekki te boo xamee la muy tekki mooy nga jëfe ko la ñuy xaar ci yow doo jaamu kenn ku dul yàlla waaw doo jaamu kenn ku dul yàlla kon nga xam ne yàlla rek moom moo fi ne waaw ba ca gën a néew ci ngëm yàlla mooy imaatatul aza an tariq waaw mooy imaatatul aza an tariqi waaw waaw jërëjëf macha allah Adja yal na yàlla fay ma koy jaar ci ci ci ci ci SMS yi di wax ne moom it loolu am na am na habitude di ko def macha allah yal na la ci yàlla saxal saxal ñi ci ñu nit incha allah jërëjëf macha allah ñu ngi nuyu waa dali Dalifor ñëpp euh, bàyyiwuñu kenn yal na yàlla defal leen tawfiix yal na yàlla dolli sa sutura bu baax a baax a baax macha allah jërëjëf. kon gis nga imatatul aza an tarix kon ba ci gën a kawe mooy laa ilaha illa allah donc nga di ko wax lu bari laa ilaha illa allah di ko def zikr di ko def lu bari waaw di ko def lu bari defar rek loo man waaw boo amee ku la ci jox lim fa lillahi alhamdu waaw ñëw ci ci ci kilifa yi macha allah ñoom Thierno Hamidou macha allah waaw donc ñu jox la ci lim waaw wala gars yi waxtaan fii ci rajo bi ay ay kilifa lañu macha allah ñoom ñëpp yal na yàlla sàmmal ñu leen ba ca gën a néew mooy imatatul aza an taarix fekk luy lore ci yoon wi ngëm dindi ko yonente bi ne wal xayaau shubatun min al gis nga yooyu mu wax ba gën a kawe ba ba gën a néew bi gën a ba ba gën kawe mu ne am na bu nekk ci biir ñu koy tudde alxayaa umuy kersa mu ne kersa ci càllalay ngëm yàlla la bokk waaw mu meloon ni taal boo taal di boyal petta petta yooyu di dem mu ne ngëm yàlla noonu la mel taal la boo taal petta petta yi nag dina dem ba toll ci soixante treize à soixante dix neuf petta yooyu bu ci gën a kawe mooy laa ilaha illallah bi ci gën a suufe mooy imaatatul aza ani tari xoolal fekk luy lore ci yoon nga dindi ko ni mu amee tiyaaba xoolal lu mën a lor jullit yi xoolal lu mën a lor bàyyima yi xoolal lu mën a lor li nga xamante ne mooy environnement bi nga fexe ba dindi ko ci lu mu mën a doon dëkk lépp luy polluer environnement bi lépp luy lor doomu aadama imaatatul aza ani tarix nga fexe ba dindi loolu xolal loolu ngëneel li ci am ñu ne le boo xoolee ngëm yàlla li ci gën a néew mooy loolu allahu akbar mu ne waaye ci biir pette pette yooyu nga xamante ne mooy ngëm yàlla am na ci bu ñuy tudde alxayaau mu ne chobatun min al iman muy kers kers la waaja defoon mbokkam ma ansaar ba di ko laaye biir naka waaye da nga war a yëngu nga war a njaxlaf buñ ñu toogee del wax del nangam del nangam yonente bi saa salaam ne ko dahu bàyyi ko déedéet bul ko forcé bàyyi dahu fa inna al min al iman wa kersa dafa bokk ci gëm yàlla bul gis nag ko am kersa nga ne ay dafa yambar e dafa tooy sa tooyaay bi sa yambar gi nangam déedéet nit dina am nu muy bindoo waa kersa fu mu amul rek ida lam tastaxi la yonente bi wax fasna ma chita soo amatulee kersa rek lu la neex nga def waaw nit dafa war a am kersa am loo jomba def kon gis nga loolu ci ngëm yàlla subhaanahu wa taala kon yooyu doomu aadama bi war ko bàyyi xel ngëm yàlla moomu nag moom ñaati ponk la am comme ko ni ko <coughs> mbokkam mëla di al islaam amee di juróomi ponk moom mu amee juróom benn ponk moom iman amee juróom benn ponk bu jëkk bi mooy jëm yàlla al imaanu billah bu ñaareel bi al imaanu bil bu ñetteel bi al imaanu bil kutubi bu ñeenteel bi al imaanu bil bu juróomeel bi al imaanu bil yawmil aaxiri bu juróom benneel bi al imaanu bil qadari xayrihi wa sharrihi moom ngëm yàlla juróom benn ponk la am kon lislaam ñaati ponk la neel juróom nga tudd juróom yi ñu wax sànq ngëm yàlla ñaati ponk la nga ne juróom benn mooy fi ñu toll nii di ko lim bu jëkk bi ci ngëm yàlla xam nga kon martaba diine yaa ngi woon ci bu jëkk bi muy lislaam juróomi nangu nga ko ba yaa ngi koy jëfe di ko jëfe muy liggéey ci yow la muy def nga di ko jëfe di ko liggéey nekk ci di ko liggéey di ko liggéey ba tollu nag ci al imaan ba toll ci al mu mel ni danga ne Dakar laa bëgg a dem nga déparé fii ci Scat Urbam di dox di dox di dox ba kastoor walla nga romb ko nga ne ah def naa jéego bu jëkk léegi nag maa ngi yoon wi xaaj na li des daal am naa fu ma tollu kon yaa ngi gën di jege kon jóge nga ci lislaam dem nga ci imaan moom la koy misaale na noonu waaw yaa ngi ci imaan mooy gëm yàlla bu dee ba toll fa nag egg fa nag muy bu ñetteel bi danañ ci ñëw mooy gëm yàlla giñ doon wax ashhadu an laa ilaha illa allah duma jaamu duma wóolu duma yaakaar duma gëm kenn ku dul yàlla al imaanu billah te yàlla boo ko laa gëm da nga koy xam maarifatullahi awalan mooy da ngay xam kan mooy sa borom kan moy sa borom nga xam ko bo la jaamu yàlla dang koy xam motax mon mu wax ne ci hadith qudsi mom suñu borom ne arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni kon fa kayfa ta'budun dang ma bëgg jaamu nang ma xam motax diin l'islam dang koy jàng alhamdullilah bi si mbaxu yàlla ci ndimbalam ceerno indil ñu safina ñu ci waxtaane lépp diine ma sha allah waaw ku fi ñëw rek joxe ay dar si dem saa sa kaneen ñëw kon nag yàlla na ko yàlla fayal moom ceer na ñu fi def ay waxtaan yëpp yal na leen yàlla fayal kon diine lislaam dañ ko war a jàng waaw moo tax góor ga di wax rajo yokkute góor gi Amadou Sow ya moom it macha allah parce que yokkute la nee na boo ko dégloo rek di nga yokku kon al imaanu billah nga xam yàlla bu baax xam yàlla nañ lañu koy jaamoo xam moom mooy kan lan la bëgg lan la beñ lu tax mu andi la fi wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisiin nga sellal la ngay def boo xamee gëm yàlla nag ba ne ci ci juróom benn ponk yi nga dem ci bu ñaareel bu mooy al imaanu bil malaika da ngay gëm malaaka yi kon ngëm noonu la gis nga ngëm yi ngay gëm yëpp daanaka yàlla doo ko gis waaye man nga ko gis mooy ci li liggéey ngay gis wa fi anfusikum afala tubsirun ci li mu liggéey ay dalil la ay tettal la asamaan si àdduna bi suuf si laneen laneen yépp day tettale màggaay suñu boroom day wane suñu boroom de mawjuud mu ngi fi malaaka it nga gëm ne ñoom ajsaamun maxluqatun min nuur قدمت لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون إلى آخره ولا يحصون الله ما أمرهم malaaka du moy yàlla bul ne mukk dañu yàlla dafa wàcce woon malaaka mu def nangam malaaka def nangam déedéet ñoom ay maxsuumin lañ duñu def ñaawteef duñu def naka sudul noonu malaaka yooyu nga gëm leen xam na yàlla moo leen yónni ci jaam yi ku si ne mu am garab bu mu la takkal nga di ko doxe ax ñamu la booleel nga gëm malaayika yooyu le gëm ga it ne li ñu lay jiima naxe leeg lekk mu mel ni dangay dem ba ñu doye dal sa ngëm ne ah dañu defoon fi benn caméra li ay malaaka yu ñuy filmer la ñu ngi nii di wàcc wala ñu ngi nii dugg bërëb sàngam loolu mënul nekk te du nekk it ba ila yawm al qiyam lolou yàlla bolew ko ci programme waaw kon yoy ñu lay wax yoy yenen la waaw yoy yenen la waaw kon nga xamne ñom ñoom ñu leen gis waaw du ci du ci beut du ci caméra du ci lenen waaw wa kutubihi téré yi nga gëm leen téré mom moom mën nañ leen gis ñox ñoo ma nekk di leen jàng muy alquran muy tawraat muy injil muy zaboor yooye ba ñu fay nekk waaye bii alxuraan ñëwee rek yooye dañu daxu alquran moo fi toog waaw waaye téere yooyu boo ci daje woon tey ñu ne bii mooy tawraat bii mooy injil yu otantik yi dangay gëm ni kii moox alquran ñoom la yàlla wàccee ni ngay gëme alquran nga koy gëme ni ngay fonke alquran nga koy fonke waye do ci atté wo ci alcorane ngay atté wo lolou moy différence bi kon téré yoy nga gëm ne yàlla nimu joxe sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam alcorane non la joxe sayyidina musa alayhi salatu wassalam li nga xamantene moy tawrat yont yàlla Isa mu jox ko injil yont yàlla daoud mu jox ko zabur ñeneen ñi mu jox len ay suhuf ba tey ci ponki gëm yàlla yooyule boo jógee ci téere yi nga gëm yonente yi wa rusulihi ñoom ñépp sa maam aadama ba si seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa leen yónni waaw bu ñu jeexee nag jamono bu ne jamono bu ne rekk dina am mujaddid buy ñëw jamono bu ne rek dina am ku yàlla yónni mu ñëw ci jamono ki yàlla di yónni nag tur wu ko borom bi jox wala tur wun ko jox rek ñooyam waaw yàlla ma yónni rek ndawal yàlla nga waaw da ngay toog rek nit ñëw ne la ah sëñ bi na nga def ayo de boo demee na nga saraxe waaw na nga saraxe incha allah yàlla dina la defal jàmm nga de waa ji de yàlla moo ko gis nga baat bi nga utiliser waa jii de yàlla moo ko yónni noonu rek la mel du la neen effectivement yàlla ko yónni kon loolu mooy ndaw rek mais kantaa nag ràngoo garaat bi ràngoo la yàlla defaloon ñële loolu la neen la waaye jamono bu ne rek dina am mujaddid kuy taxaw koo xamante fay rappeler waat nit ñi à l'ordre dafay fàttaliwaat parce que jamono noonu lay demee ba màndarga yu mag yi yonente bi waxoon yépp dana ñëw ci mujjug jamono te incha allah dana ñëw lu mel ni masiixu dajjal antichrist day ñëw waaw yooyu yépp day ñëw almahdiyu day ñëw eh, nuzulu isa isa wàcciwaat yonent yàlla isa day ñëw yooyu day ñëw ci mujjug jamono waaye seen di nekk ci kaw suuf du yàgg lool mais danañ ñëw danañ ñëw de waaye ñëwaguñu ndëkk نعم. ورسله واليوم الاخر جم بس جم بس واو يوم القيام اتا بي مولا تي بولا اغ فاليه فار فاليه نانا دي مو جيتو واو كون بو في جوغي رك ياغي برزخ الحياه البرزخيه بامل خيول ولا خط خط دنجكاي گم واو dekki ëllëg dang koy gëm pëse jëfi dang koy gëm jéggi sirat dang koy gëm dugga aljana wala safan ba dang koy gëm loolu mooy yawmil axir kon étape yépp dang koy gëm kon yooyu xay la allazina yu'minuna bil xay la yàlla wax niki noonu nga gëm dogal wal qadari dogal bu neex bu naxari waaw lu yàlla dogal rek nga gëm ko waaw bul ko la kenn yonente bi sax mu ngi la koy xadis waaw bu leen ubbi buntu seytaane ah su ma deful woon nangam nangam du ma dal su ma demul woon bërëb sangam bërëb du mais yàlla moo dogal ne di nga fa dem nangam dal la yàlla moo dogal ne nangam kon jullit dafay nangu dogal waaye lu la dal nga am foo ko wéer wala koo ko wéer day wàññi sa pas-pas jullit dafay am dogal te nag na nga jàpp yàlla mën na la nattu. te effectivement daf ñuy nattu waaye du ñu mbugal mukk incha allah waaye boo ne jullit nga foog yàlla nattu la mais tamit ay yudraku naasu an yaqulu amanna wa hum laa yuftanoon bokk yi gëm naa rek yàlla foog mu éprouvé ñu ala kulli xaalin di seet di seet di natt ñun fan la ñu loolu foog mu am mais du ay sanction yu ñu yàlla di teg déedéet yàlla sanctionné waaye daf ñuy nattu di xool ñun suñu gëm yàlla fan la toll loolu nag muy man mi di wax muy kaneen loolu moo ñu manqué muy gëm yàlla muy doyloo yàlla comme niñ koy waxe naan gëm naa yàlla mais est-ce que doyloo nga yàlla mais est-ce que wóolu nga yàlla ci lépp est-ce que lépp yaakaar nga yàlla nga ci yaakaar est-ce que moom nga si doyloo loolu moo ñu manqué gëm naa rek gëm naa il faut que ñu def tawakkul dëgg-dëgg ci yàlla jël suñu lépp bàyyi ko ak moom subhanahu wa taala fa muy wax naan wa kazalika nuñ jil muminin ak yeneen ak yeneen mais julli di lay waxal mais boo gëmee dëgg-dëgg suñu borom bi subhanahu wa taala foog mu taxaw la kon juróom benn yooyu mooy dogal su ko defee da ngay gëm ne xam ne dogal bu neex bu naxari da nga koy nangu kon loolu mooy juróom benn ponk ngëm yi kon mu mel ni waxtu wi ñuy nodde pour waxtu julli jot na bu ñu ñëwaatee rek ubbi ligne bi su ko defee incha allah ba ci kanam الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين sant yàlla subhaanahu wa taala mi nga xamante ne moo ñu may ñu fekk sewaat jotaay bile talaal badru di ziar El Hadj Doudou Seck macha allah di nuyu mbokk mi ñu ngi koy ziar bu baax a baax yal na yàlla defal ñëpp tawfiix yàlla dolli seen sutura bu baax euh, di ñaan yàlla mi nga xamante ne mooy boroom sutura yal na yàlla defal sutura kon ñu ngi woon ci martaba diine yi nga xamante ne mooy ay cëslaay delluwaay ci diine diine yi nga xamante ne war nañu xam lan mooy cëslaay ci islaam ci imaan ci ixsaan ñu war a toll ci ixsaan wax nañ la lan mooy lislaam ponk yi bu ci ne wax nañ la ko di juróom wax nañ la ngëm yàlla di juróom benn ponk wax nañ la ko si lañ daanale léegi wara ñëw ci ñetteelu martaba ci diine lislaam muy al ixsaanu di selal wala nga ne rafetal waaye mën nga jël sellal su ko defee bon profiter rek ci li dess ci waxtu wi ubbi ligne bi ci 88 628 10 95 ku fa gar inshallah ñu ubbi la 88 628 10 95 bu ñettel bi mbokk yi ci martaba yoyu le moy al Islam moy al ihsan al Ihsan. dama la waxoon sànq yaa ngi jóge fii di dem Dakar dem ba tollu Castor allo salaamaaleykum. wa rahmatullah wa barakaatuhu El Hadj Malick ñu ngi leen di ziar ñu ngi waxtaan bi macha allah jërëjëf tey moom waxtaan ëmb na jërëjëf li mu ëmb dafa am ngëm yàlla jërëjëf te natt bu la dalee nga waaye nit ñi léegi daal lu la dara nga ne diw ma ko teg nga ne diw <laughs> wallaahi wax nga dëgg suñu yàlla jëm suñu borom moo gën a wóor moo gën a wóor kay ànd ak doomu aadama wallaahi géey boo yaakaaree si diw ah. bu lay may la neex la waaye su ànd ak borom hmm. bu lay may da ngay kontaan wallaay da ngay bëgg wallaay da ngay du la wax lu ko naqari mu déedéet la kon tey waxtaan bi mu ëmb ëpp bëri na jërëjëf waay jërëjëf am na jàngat yu bëri na jërëjëf gay jërëjëf yal na yàlla guddal allahumma amin waay macha allah ñu ñoom ñëpp a ngi lay la bàyyi gay xamal la ko waxee rek sore yaa ngi toog waaye xol yaa ngi waaye yaa ngi suñu biir yaa dool ñu sore jërëjëf jërëjëf li woon démb moo fi nekk wallaahi dëgg la wallaahi dëgg la wallaahi dëgg jërëjëf kay donc nga ñu ngi koy ziar lu bari incha allah kenn du fàtte sa bopp maam mari ziaral ñu ko lu bari ñu ngi koy ziar macha allah meer Ndioufa mu ngi lay nuyu wallaay wallaay wallaay wallaay géy wallaay géy jërëjëf El Hadji Malick yow lay nuyu yal na ko yàlla fay El Hadji Malick si taxawaayam ci 88 628 10 95 kon gis nga loolu mu wax rek lépp ngi ci biir ko defee nag nga ñëw ci martaba bu ñeenteel bi bu ñetteel bi nag war a àgg Dakar allo salaamaaleykum allo. waaleykum salaam waa kay baaba war nga wan. mbay nam naa la. maa la raw wan wallaay wan. gën nañu déggante de. wallaahi jaaduwul ci ñun de. gën nañu déggante dëgg yàlla. wan wan dëgg la dëgg la wan. maa ngi nuyu suma sëriñ Hamidou Yero. mu ngi lay dégg. يلا يلا دخل جنبك اللهم امين امين امين man daal ah maa ngi ci wetu Thierno rek wallahi xam nañu loolu lu fi nekk daal aha gisuma lu ko raw dëgg la wallahi wallahi macha allah fi mu nekk nii ah Thierno yore fu mu sukkandiku dafa leer nañ askay askay askay askay askay sukkandiku si Cheikh Oumar askay wallahi wallahi wallahi foofu am na am na am na fu muy jàpp askay allahu akbar waay jërëjëf surtout nag Thierno Bachir Sall. Thierno Bachir macha allah yan yàlla guddal fanam. xam nga yàlla. lu mu def. Mhm. am na ko. sant yàlla baax na trop. sant yàlla kay. mais tool bi nga mën a béy. bu bu dul béy euh, topp yàlla. Oh. du du du ne du am mbokk de. du du du du <laughs> barke de. est-ce que waay est-ce que. yàlla lu yàlla rek mooy am. wallaay dëgg la nit. Ah. na fexe xam lu muy lu muy diine. wallaay xam diine jërëjëf. buy julli. nga xam noo koy jullee. wallaay dëgg la wan. yàlla kay defal ñu jàppale. Mhm. moo ñu bind. waaw. defal nañu lépp. wallaay dëgg la. fii laa bëgg. wallaay dëgg la bëgguma fii. Ah. awal fu mu bugg a def boo buggee jëm est-ce que seen liggéey lu fi am rek yow la wallaay dëgg la kon nag yal nañu yàlla allahumma amin wan amin wan defal leen sutur guddal say fan wan amin wan sa numéro bii nag dafa ma reeroon boo bëggoon nga nga nga ma nga jox ma sa numéro incha allah incha allah soo gisee fan boobu uh, ma la fan yii yëpp. dëgg la dëgg la waaye dëgg la wan dëgg la wan. moom Baye Ngale yëpp dëgg dëgg la kay dëgg la dëgg la mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg. <laughs> mu ngi lay dégg jërëjëf. événement yi jublu. Mhm. événement Cheikh Tidiane. jërëjëf. yal nañu yàlla fekk. allahumma amiin. amiin yaa rabbi amiin amiin. kii bi Thierno moom. foofu rek lay nekk de. wallaay dëgg la wallaay ma taw lu tax ma jóge foofu. incha allah incha allah. waaw yàlla defal jàmm nag. allahumma amiin wan defal ñu sutura. amiin wan maa ngi nuyu mbokk yëpp. jërëjëf wan. ngeen baal ma xàq nag. jërëjëf jërëjëf. Ah, lii amul soo gëj naa ko dégg. waaw mu ngi fi mu ngi lay dégg nii sax mu ngi lay dégg. mu ngi ak mu ngi ak jàmm de wallaay mu ngi ak jàmm. alhamdulilah xam naa ne eh, affaire mag moo ko waaw mu ngi noonu mu ngi noonu su ngeen ko bi rek mbiru mag la waaye mu ngi lay dégg nii affaire mag rek moo wala wallaay dëgg la wallaay wan yàlla yàlla mosal yéene bi wallaay wan amul tookol bi rafet na trop wallaay rafet na yàlla na ko yàlla defal jàmm wallaahi wan anul mu bàyyi nga la dina ko dégg mu ngi lay dégg sax wallaay wallaay nga ne Thierno maa ngi nuyu bi yëpp. waaye xadara baa lay dégg. wallaay naa ngi fi mu ngi fi wallaay. waay bu doon suba sax ajuma la. ji est-ce que wallaay wallaay seetal lii rek. kon yàlla lu mu def rek. xam nga wallaay wallaay wan. wallaay yàlla defal jàmm bari wallaay wan wallaay wan. jërëjëf nga jërëjëf jërëjëf te ñu déggante nag. waaw noonu la yàlla baax na jërëjëf. jërëjëf Baba Warga macha allah wan yal na yàlla defal la tawfiix yal na yàlla dooli sa sutura bu baax a baax ci 88 628 10 95 Al Ihsan mooy rafetal nga ne yaa ngi jëm dakaar egg nga léegi nag loo fay def rek mooy danga koy sellal egg nga léegi au sommet allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum ah ñu ngi ziar bu baax soxna Maymuna Jaw ñu ngi ziar naka waa HLM sant yàlla bu baax Jaw sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah ceerno hamidou ak ci ci genn bi baba warga wan ya. eh, baba warga omar diagne eh, omar diagne omar diagne omar diagne omar warga mom mom dañ koy beral nuyo ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah deug may ko wer amin ya rabbi ene teugat ko bamu am carte mu dawal ñaar ñaar amin way amin suñu mak yoy way jerejeuf sama may mo jerejeuf jerejeuf jerejeuf yalla baye len jerejeuf iya, way jerejeuf amin jaw amin way jerejeuf wallahi deug nga wax rabbi ah, maa ngi mu ngi lay delloo ah, ziar di la dégg wallaay jërëjëf jërëjëf jaw allahuma amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin amiin allahuma amiin jërëjëf jaw jërëjëf ñu ñu waa HLM ñëpp incha allah ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp macha allah jaaw jërëjëf macha allah jërëjëf macha allah soxna may mun a si ñaan yi mag ñi dégg ngeen li mu leen ñaanal yàlla nu ko yàlla defal defal ko ko moom it ku baax la ndeysaan di nuyu waa HLM ñëpp di ziar ñëpp si 88 628 10 95 kon su ko defee nag al ihsaan boo fa tolloo ginnaaw islaam iimaan ihsaan ngay rafetal loo defati da nga koy rafetal allo salaamaaleykum. maaleykum salaam imam. waa kay maa ngi ziar bu baax. lii di bu baax. sant yalla pap Mor ñu ziar. ziar ñepp la kay delo ziar pa war nga woon bu baax. mu ngi la kay delo ziar Papa Amadou Sow ñëpp. jërëjëf. Paa yëpp maa ngi leen di ziar. ñoom ñëpp la kay delo dem baal wax jëlewoo nag. jërëjëf jërëjëf. liggéey bi wallahi xam nañu lolu xam nañu loolu. waaye duma ma di leen deug wallahi deug la. ñu ngi ziar ñëpp jërëjëf fay fay. ñu bi am na solo loolu. waaye jërëjëfati jërëjëf. jërëjëf fay yan yàlla jàppale jërëjëf yan yàlla jàppale bu baax a baax Pam moor jërëjëf di nuyu waa Yoff ñëpp soppe yi fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di ziar ci 88 628 10 95 noonu mu ko waxee rek mag ñi amuñu seen fay macha allah ñu ngi ñuy wettali jamono bu ne di ñaan euh, góor gi Amadou Sow mu ngi leen di dégg yéen ñëbit macha allah ku oote rek mu ngi naan askay macha allah boo ngeen ko déggul rek xam leen ne day noppalu tuuti rek naan mag moom danga koy sakkanal kon nag mu ngi leen di dégg bu baax a baax a baax secrétaire ñu ngi koy nuyu Dieynaba maire Sow ñu ngi lay nuyu bu baax di nuy njaboot gi ñoom ñëpp macha allah kon su ko defee al ihsaanu mooy ñetteelu martaba ci diine nga sellal looy defati danga koy sellal alo salaamaaleykum allo allo allo salaamaaleykum ah dafa mel ni rëcc na xam naa bu faggaatee rek ñu balaa lañ bi mooy xaw a kii dafa mel ni dafa am écho tuuti. su o fëggaatee rek ñu ubbil ko incha allah ci 88 628 10 95 kon su ko defee al ihsan moom la yonente bi doon wax ne benn ponk la mooy an tabudallaha ka annaka taraah fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka mooy daal looy def na nga ko sellal loolu mooy al ihsan mooy léegi nag egg nga ci combaxtal la mooy def nga lislaam jëfe nga ko jëfe nga ko jëfe nga ko ba egg nga ci al iman di ko jëfe di ko jëfe di ko jëfe ba egg ci al ihsaan nga xamante ne looy defati rek léegi da koy rafetal nga ne ah macha allah fi mu toll nii nag damay rafetal sama lépp loolu mooy ponk bu ñetteel bi wala martaba bu ñetteel bi ci diine looy defati rek da koy sellal su ko defee jibril alayhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñu jàngal diine dafa ñëw ba seus yonente bi sallallahu alayhi wasallam diko laaj lan moy l'islam lan moy iman lan moy ihsan yonente bi sallallahu alayhi wasallam naka al ihsan an ta'budallaha ka annaka taraah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kon alo assalamu alaykum alo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah imam ma ngi ziar ah malik Ban maa lay delo ziar ñu ziar wér wér sant yàlla malik ah waa sant yàlla bu baax. gëj a woote a jot waaye waaye yi téye ndox mi yéen moom amu leen amu leen amu leen amu leen jot fi mu toll. waaw ah, loolu askan wi yëpp a leen di ndokkal sapeur pompier yi am ngeen coono yéen. ah ñu vraiment yéen a ngi ci ndox mi macha allah te yéen a ngi daal di góorgóorlu di xettali askan wi. amiin waay malik jërëjëf maa ngi ziar ñëpp hmm. a la koy delloo. sëñ Malick maa ngi koy ziar noonu la koy delloo jërëjëf jërëjëf maa ngi ziar a la koy delloo vraiment surtout yow imam jërëjëf ngi lay ziar bu baax di sàkk sa a baax amiin naka waa Kaaba waaye ziaral ma leen ñoom ñëpp incha allah vraiment say soppe lañ waaye man a sopp macha sa ñaan sant yàlla bu jërëjëf Malick baan di nuyu waa caserne Malick si ñoom ñëpp euh, homme de tenue yëpp rawatina sapeur yi ci di ko jox Malick baan mu nuyul ñu leen ñoom ñëpp euh, di leen ñaanal yàlla tawfiix nga xam ne ñu ngi taxaw askan wi jamono bu ne euh, kon nag nañ xam ne ñoox ñoom benn lañu ñu ngi ñuy xettali di ñu dimbali fu ñu soxlaa wallu ñu taxaw kon nag sapeur pompier yi di ko jaarale ci Malick baan yal yàlla defal ñu leen ñëpp tawfiix doolu seen sutura ngeen am kantan am wér tal ko gu ngeen mën a taxawoo askan wi saa yu leen ooyee rek ngeen mën di uyu su ko defee ñu xam ne ñooñu eh, ñëpp leen di soxla di profiter rek di wax ne ñu ci tali bi fu ngeen leen gisee ñuy ñëw Ah, bu ngeen leen manee may rek ngeen may leen xam ne ñoom dañu leen di soxla te dañu nekk ci ci wàllu ji kon su ko defee loolu dafa bokk ci wàllu civisme tamit kon na ngeen góorgóorlu ci bu baax kon nag yàlla na yàlla dafa leen tawfee mu mel ni waxtu yi mu ngi dem su ko defee kon eh, bu amee ko fëgg rek ñu ubbil ko comme sa joxe heure yi bu ñu laa yëkkati jotaay bi ndax góor gi Amadou Sow mu ngi ñuy déglu macha allah kon en résumé bu ñu doon tënk tey dañ naan rek ci martabay gëm yàlla muy ñett muy muy iman muy ihsan bu si ne wax nañ la moom taxawaay bi mu amé wax nañ la ponk l'islam wax nañ la ponk ngëm yàlla wax nañ la lan mooy al ihsan su ko defee yooyu it nga xam ko bu baax moom ngay mën a jëfe moo lay dimbali ah am na ko ne ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam ko man maa dellu si waa ah Baba Warga wan wan wan wan waaw kii waa pompier boobu kii woote léegi Malick Ban Malick Ban maa ngi koy maa ngi koy gërëm di la sant jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di ñaanal yàlla. amiin yàlla leen barke li ñu liggéey. jërëjëf. defal leen sutura at nag. laa amiin yaa rabbi amiin. affaire militaire dafa métti. dafa métti kay wallaay dëgg la. dafa métti surtout nag ndax commandé maa ñu commandé la. dëgg la wallaay dëgg la. surtout nag li li ñu yor nii. ah macha allah jërëjëf kon nag Malick baan dégg nga Papa Warga mu ngi leen di ndokkeel di leen jaajëfal di wax coono yi ngeen di jànkonteel macha allah kon mag la xam na loolu bu baax kon nag daal xam naa yéeneem yëpp mooy ñaanal leen yàlla tawféex yéen sapeur pompier yi homme de tenue yëpp d'une manière générale Ah, kon nag Pa Warga mu ngi leen di ñaanal waa Safina ñu ngi leen di ñaanal kon nag Malick nga jotul ñu nuyoo sa sa naataangoo yëpp macha allah yan yàlla defal leen tawfiix yàlla dolli seen sutura rawatina nawet bi da ngeen di sonnal lool wax dëgg yàlla yan yàlla defal ñëpp sutura rek incha allahu rabbi Baba Warga jërëjëfati jërëjëf jërëjëf Baba Warga macha allah kon nag waxtu yi góor gi amadu macha allah Sow rajo yokkute fajar gi mu ngi si 5 heures 49 fajar gi cinq quarante heures 49 danañu salaatu kon nag bu ñu demee ba 6 heures jot rek di des 2 minutes 3 minutes di nga gis ne dañuy taxawal julli kon nag mooy 6 heures pile bu jotee ñu taxawal julli donc fajar gi 5 heures 49 salaatu xayru na naw moins 11 moins 12 bu ba 6 heures 6 heures 1 minute wala 6 heures daal nga xamante ne julli suba jot na tisbaar gi euh, nga gis ne 2 heures kon nag fajar gi 5 heures mois moins 18 bu ñu demee ba 6 heures incha allah ñu taxawal julli tisbaar gi 2 heures et quart takkusaan 17 heures timis gi 19 heures 2 minutes incha allah timis gi 19 heures 2 minutes kon nag Abdoulaye Sarr ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah moom it euh, mu ngi dugg xam naa ligne bi waaye mu ngi jaar si suuf di di di oote di yëglu na mu ngi àndandoo ak ñun kon nag Abdoulaye Sarr gi tee ñu ngi lay ñaan yan yàlla defal la tawfiix yan yàlla dolli sa sutura kon nag mooy fajar gi. ñu taxawal julli suba 6 heures incha allah tisbaar 2 heures et quart takkusaan 17 heures timis gi 19 heures 2 minutes geewe gi 20 heures 2 minutes bo si tege it loo si teg rek baxna na allah kon nak mbokk yi di len dox dajje ba aljuma bi di ñëw incha allah lu ngeen amé laaj wala yu ngeen bëgg ñu waxtaane ko rek amna kuy fëgg defena ah d' accord kon nag su ko defee lu ngeen amee laaj rek si 77 614 94 92 incha allah su ko defee bu ngeen si ootee rek lu ngeen laaj ñu tontu lu ñu xamul ñu dellu ci daara ji di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw di leen ñaanal jàmm taw fi réew mi yal fi yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli sutura wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.